Moi, moi je pense que ce qu'il faut faire ni ni ni ni moi ou alors ça veut dire que man sénégalais mhm. parce que tu président de la république Ousmane Sonko histoire au Sénégal nous am. un premier ministre déclaration trouver tous les stratagèmes possibles imaginables

juróom-ñetti fukki fan après 90 jours de délai soit 5 novembre lañ 5 euh, euh, euh, comment dire 5 avril lañ ko fal lañ ko lañ ko nommé Ousmane Sonko régné mom ak Bassirou Diomaye fay 80 jours bi mu desee fukki fan ci délai en général délai de coutume bi fi nekkoon 90 mm. jours muy dogu bind lettre ne leen dama bëgg ngeen defaral ma règlement intérieur mm. am na ñu xamné nañu il est de bonne foi man gëw mu Ousmane Sonko est de bonne foi dama gëm ni Ousmane Sonko n'a jamais voulu se mettre en face justement de ces députés là à l'Assemblée nationale mm-hmm. ñu ne baax na Assemblée nationale defar këyit bi indi ko mm-hmm. jox leen ko ñu ko président de la République Assemblée nationale ñoo choisir la date du 11, ci gàttal mm-hmm. président président de la République def lii mu def nii barki démb ci guddi waaw léegi élection tey bu amee

dans xel dans na tout ci Bassirou Diomaye Faye à un moment donné mm-hmm. donc damay garder une saa toute réserve mm-hmm. mais je me rends compte que aujourd'hui mm-hmm. que nit ñi fi c'est hyper dangereux rappelez juste aux Sénégalais que ñoom ñoo doon wax bi Macky Sall nekk ci nguur gi ñoom ñu dans l'opposition élection législative am dañu taxaw ñu ne il faut jamais jamais donner à l'exécutif une majorité à l'Assemblée nationale il faut toujours équilibrer les choses Sénégalais au jour d'aujourd'hui l'heure je pense que vous devriez tout faire pour que nous nga xamné ne dañu def lu leen neex and ak effronté bo xamné ne mhm. ak espèce su bo xamné ci ci réew mi bo gissé man dégg muy wax demb man man man man dama doon man dama dama dama dama dama c'est ces gens là je crois que ni réew mi ay bu nous ñun

le peuple a besoin de nous. Ah, nous devons nous souvenir. On ne peut pas laisser comme ça les choses. On ne peut pas. on ne peut pas. On ne peut pas. nga xam nga aussi mais mais beaucoup nga nga euh, ces gens là moi moi j'ai envie de voir ces gens là à l'Assemblée nationale le grand là c'est un technocrate mais il faut que vous veniez à l'Assemblée nationale parce que moi les gens avait dit

Tu, tu, tu, vas laisser les choses comme ça continuer. Mais essaye au ah, moins, ah, d'avancer un peu. Essaye. Tu ne peux pas tout le temps dire, oh, oh, parce que dans le centre ben injustice, ces gens-là, ils tombent déçus. Tu attends encore qui allume Sow qui débarque, qui te déçoit encore. Il y a beaucoup de ça Mais au moins, ça a un cadre tiré. Pendant 20 ans, 30 ans, il y a des journalistes, il y a des gens qui mais comment le fallait Comment le fallait Mais nous, tu continues, ces gens-là, ils sont là juste. Qu'est-ce qu'ils ont fait Mais moi, honnêtement, xëy man maa ëpp mérite Ousmane Sonko. dëgg la man hmm. Ousmane man li ma def ci réew mi defu ko Ousmane lan def ci réew mi Ousmane Sonko dafa jàng école ñu fay ko ñu fay ko ay école état bi toppatoo ko dugal ko fa béréb bi dugal ñu jël seen avantage ba ba fi ñu toll ni hmm. créé seen i syndicat ba fa ba toll ñu mujjee fi lan la ñu réew mi fan lan la ñu fay qu'est-ce que mos nañu fay ay nit. on a des on a une entreprise on des gens. Oui, nous nous Nous qu'on doit faire On fuit, on assume, on on tient coup, on s'organise, on réfléchit ensemble, on essaie trouver des solutions. On fait comment on reste juste comme ça après bu ñu jàllee nga ko newaat di wax jur man ñoom duma ko ne di wax ah mun naa wax ne dama bëgg wax ci assemblée so àdduna bi dima dégg boobu mooy voix officielle bi nañ nañu dimbali quoi on essaie de faire quelque chose eh, wala boog ngeen jàppale ñu bokk mais mais duud yow da nga war a bokk on peut pas laisser les choses comme ça wala wala qu'est-ce que kan vous voulez peut-être pas vous mais vos enfants vous en faites quoi les gars yi di leen pamti pamti ni nit taxaw ne président de la république wax waxam mu di mu changer avis

nga tok di xalaat ndax Alioune Seye wala déet jëlal sa téléphone musuma wax sama aduna wu dara te defuma ko xanaa maa ngi ñëw xaw a yéex a ñëw waaye les gens ne disent pas la vérité ici. Mm-hmm. ce pays est infesté de menteurs et d'hypocrites. Mm-hmm. il faut que ñu wax dëgg gaay yi il faut ñu taxaw une autre manière de xex xex ci dëgg que Doudou lu ma lu ma la mënti bañ boo ñëwee wax ma lii Alioune Sow li nga wax du dëgg man bu ma xoolee naa xam ndax yow Doudou li nga wax dëgg loolu du dëgg te bu fekkee ne li nga wax dëgg la man dama war a nangu loolu parce que yàlla moo tax te ñun mëtuñu ne mën nga ko wala xam nga ko te man xamuma ko bu ma ko fàttalee ma ma rendre ci compte dama ko war a nangu bu fekkee ne nit ku baax la mais ces gens là sont des gens faux Bassirou Diomaye Faye en tant que président de la République comment il peut sortir une chose pareille comment il peut nan la mën a génne ni moom non

Nous fi que nous nekk te réew bi ñu normalement mais pourquoi ko continue à mu continuer ba mois mu di assemblée nationale mais comment on peut avoir un premier ministre de la république yow nga fal le 5 avril nga xam ne kii 90 jours ce monsieur là doit pouvoir affronter l'Assemblée nationale Il y a seen déclaration politique générale pour l'opinion nationale et internationale les investisseurs adduna bi ñu a ci xam Sénégal Il lañ ko jëmee mm-hmm. yow ne loolu doo ko mm-hmm. mais l'Assemblée nationale dañ leen fal mm-hmm. dañ ces gens là

mais nga gëm ne waa li mu def dara baaxu ci dañu wara jog taxaw def suñu kamtalay kàttan jàkkaarloog Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko pour s'asseoir à l'Assemblée nationale lépp lu ñu fa mën am comme nombre de députés ñu gorgolu ci fexe ba loolu taxaw réenté ko def suñu kamtalay katan li ñu war wax ñu wax ko foofu ba sénégalais yépp té ci dëgg kese nak bu ñu ci dëgg yalla mu ko yalla def bu ma attu bu ma parce que ça fait très très très mal Doudou on a ma on en a marre de ces gens là il faut il veut de la rupture lii ces gens là

amul naa xel ñaar mm. parce que pour man kii nii pour man séeréer sa mm. yaay séeréer la wallahi mm. waaw moo ma yaakaaroon ni xëy na parce que dama am yuma yuma yu ma ma si jàngal ma am yuma ma si doon gis ci ay attitude damay séeréer sama papa pël man pour man mën na te bus naa jàkkaarloog moom as euh, fële euh, ca euh, Walfadjri benn salon d'honneur ci benn corps pas ren mais da bële passé y a un an Je xooloon ko je ne xëy na peut-être kii nii waa ji bu effacé woon xëy dina ko dimbali dem numéro deux yëpp lu nekk la peut-être j'ai beaucoup hésité ne non gaa ko nga pour lan pour protéger benn nit pour lan ay politique mais waa a dem sax nationale parce que même moo choisir d'être premier ministre de la république du Sénégal yéen ñaar nga fal ko de war naa war jàkkaarloog assemblée nationale boo toogee ba juróom-ñetti fukki fan yi mu des fukki fan ngay bind lettre foofu xam nga ni tappale la mm. bi ngay bind lettre boobu di wax naan dama bëgg ñu defaraat règlement intérieur bi yow sa bopp waxoon naa leen ko ci tali xam ngeen ni te ñi am xel xam nañ ni yow loolu mënul nekk mm. que loolu taxulaa jóg que bëgg ñoo waa waa assemblée nationale mm. eh bien c'est ça que vous avez montré hier yow euh, ci ci jàlle kuy basi Ousmane Sonko nag deful dara moom li wax yëpp am na waaw na bëgguma bëgguma Et je me mettrai dans des conditions pour pas le faire parce que mon maire chef mon patron mon président mon prince maay c'est le mentor politique c'est le mentor politique. donc Bassirou Diomaye Faye il doit démissionner mu démissionner defal la wax rek ça fait ay weer xamu ñaar la koy wax ba nit ñaa la démissionner de l'Assemblée nationale démissionner de de la présidence de la République organiser des élections couper les ko comme ça Ousmane Sonko que candidat bu la neexee après nga présidence de la République moi, xam fu mu wala mu def le premier ministre mais au moins defal lol ndax ñu xam président Voilà, ci mi wala changer constitution comme ça légui prérogative présidentielle yi yi am yi di ñu ko ñu jox premier ministre comme ça au moins ñu xam ni mi la wax waye dara ba dara un moment donné ça doit s'arrêter j'ai honte j'ai la haine j'en ai marre mais je vais continuer le combat parce que je suis un mec endurant mais il faut que Nous continuer ko def il faut que mais dama dama chaque fois questions, mais est-ce que sommes devenus comme ça les personnes qui doivent qui suppléer le président de la République nous mm. ñëpp disparaître en cas de vacances de poste qui doit suppléer le président de la République la ah, constitution ne le prévoit pas. Ni ni ni en cas de vacances du poste du président de la République qui doit le suppléer. Ni ni parce que assemblée qui doit le suppléer. bon a non mais si euh, président ensemble nationale moo koy parce que ah, parce que mon ils sont ils sont toujours députés. ah ils ah, jusqu'à l'installation du. ok euh, allez, on se retrouve au second tour de table. second tour de table Donc a... Euh, la région ngeen prépare, ko une manifestation qui am ni en cours à Touba Touba Guédé. Nous avons tamit une contribution. benn Sénégal bu am valeur fii Sénégal muy mm. Manar Sall. Mm. Euh, kii Sall ngeen préparé loolu léegi nag euh, grand Moustapha Diagne yow yaay jeexal premier tour ndax léegi dañoo bëgg ñu def piano piano. Mm-hmm. nga xam ne kenn ku ne dañ lee bàyyi nga wax nga def si chronique bu bopp. Mm-hmm. ñu ñëpp ñu nopp sagement déglu la bu ñu paree ñu defaat dañuy tour a table nga xam ne ñu si bërëxal bu tëxal euh, yi jeex yëpp grand la question centrale de cette émission mooy dissolution de l' assemblée. peut-il rester présent nous y avons tous répondu Il ci ah, discours de sa quelques minutes. Je mm. mm. euh, aussi mm. également mon frère. très client. Mm-hmm. je vois que même मैं तो ये मम्मी की उते ते उबे मैं तो मैं बाय आज जुमाई तेरे मंदिर में कांग्रेस जो ना ले यार सिद्ध Bah, je pense que Dembélé a une unanimité. Tout à fait. Sénégal, en tout cas, au Sénégal, nous sommes honnêtes. waaw surtout ça. dañu ko def dañu honnête. parce que